Euh, tey itam yoon mooy def liggéeyam buñ leen déggaatee ci ñuy def jëf yu mel noonu nga xam ne wax dëgg yàlla joxe na ci xaalis bu baree baree baree bari loolu yow man njàngan nga ci am waaw sunu borom de moom suñ bàkke hmm. tayibun laa yaqbalu illa tayiba hmm. kuñ tuumaal kuñ tuumaal suñu borom xam na ko hmm. ñun ki kuñ tuumaal bu defee bu defee suñu borom xam na ko suñu borom ñu xam mooy képp ko ca def képp ku ca def moom xam na ndax def def bi maqbul la hmm. wala xayru maqbul hmm. yàlla nangul ñëpp nag dëgg la yàlla nangul ñëpp nag waaye daal hmm. eh, inna allahu tayyibun laa yaqbalu illa tayyiba léegi li olof di wax mooy ki lay sëdd ci gaalu xaj munoo ko bañ am li nga mën a bañ mooy bul te lekk rek très bien macha allah waaw am na solo ndax doomu aadama fu mu toll moo def nangam moo fex nangam muy am rek waaye yow mi ñu yaa def nangam moo def nangam nag loolu la wax naan kuñ nit mënuñ ko ñàkk sédd ci gaalu xaj mhm. waaye bu la ca kenn fekk ngay lekk euh, est-ce que euh, Touba ca kanam ak liggéey boobu ñu def Touba mënees na koo tuddee effet gu état wala euh, état boo xam ne xamul priorité ndax buñ demee baaw askan ñooy taxawal seen bopp dajale ngir mën a defal seen bopp assainissement dëkk boo xam ne amut askan wu mel noonu wala amut kàddu googu moom bu amoon situation yi état am xanaa dana tumuranke kon de waa ji Dakar gii sax ngay wax waxuma la Touba Dakar gii mhm. gis suñuy suñuy suñuy njiit Mbàkke bu nu dajee ba ne def leen nangam dañuy toogaat bu ñu na def leen nangam jooja day mel ni defu wut dama daan seetaan jenn waay ñuy wax si tunkara mhm. waaye day wax dafa fa sa wax ju am solo mhm. mooy xaar nit sab def def mhm. mën naa tax sab def def yéex dëgg la ñun daara suñ Mbàkke ba daara sosoo ba léegi Tuubaa beneen daara. Mhm. bu mu mën a doon. Mhm. booy xaar ku ñëw defal la ko du mhm. defu. dëgg la xaaruñu woon kenn. très bien léegi nag defal rek. léegi nag état mi nga xam ne moo waroon def li ti defu ko. xëy na dana mën a ñëw def ay récupération am nangam ak nangam. Mhm. waaye yow fekk def nga rek. xam nga day mel ne mën naa jur ak ñàkk kàddu. ndax daa mel ne da nga daan wax ci eh, jotaay yi ne koo bëgg a mhm. régler da nga koy réggal koy réggal bu dee état li ko war defu ko ci dëkk ba waa dëkk ba defal ko seen bopp mu bëgg a ay loi appliqué ko ci seen kaw mën naa mel ne foofu ak ñàkk déggoo mën na fa jafe mm. moom kay soo bëggee foo joxoñ penk ba am <laughs> jant ba fenk fa mm. del joxoñ penk rek la moo tax ñun suñu état yi politiciens yi mm. ñi opposé ñëpp bu ñu soranteeg umma bi rek sëñ Mbàkke umpante mhm. bu ñu umpante yu mel nii mooy am mhm. waaye daal ñu gàcce ngaalaamal waa Séré waa Touba ca kanam mhm. di leen daal di baax di wax ne daal ñun suñuy mbir moom bu ci di xaar kenn mbirum daara ji laa bëgg a wax waaw ku war a xëy rek xëy ku war a xëy rek xëyal ku la ca fekk fekk la ca ndax suñu borom sant taala sëñ Mbàkke bu muy santaan bàyyil yonent bi daf ne fekk la ma ca tool ya ba muy ba muy santaan bàyyil yonent bi